au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale qui se tient à Paris ce jeudi,

les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays développement en matière de vaccination, a insisté le président de la République, rappelant que bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie des vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale, le continent est encore largement tributaire d'autres régions pour couvrir ses besoins. C'est dire, selon lui, l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Le chef de l'État pense qu'un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. Il ajoute que dans la perspective de la consolidation des acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, dans cette perspective, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est félicité que l'Institut Pasteur de Dakar ait initié avec le soutien du gouvernement sénégalais un programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. D'ailleurs, il informe l'assistance que la réalisation des infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation et le site de Vaccinopole de Djamniadjo, qui constitue une des entités du programme, aura une capacité de production de 300 millions de doses de vaccins de routine épidémique ou pandémique en utilisant trois plateformes technologiques. Le président de la République a souligné que pour encadrer toutes ces initiatives, législative, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique ARP qui s'est beaucoup employée pour atteindre les phases de maturation et d'homologation requises. Avant de remercier à ce sujet des pays, institutions et organismes partenaires pour le soutien qu'ils apportent au Sénégal, en particulier dans les efforts de promotion du vaccin et de la vaccination, au premier rang desquels figure Gavi. Par ailleurs, il a réitéré son pour Gavi et invite tout le monde à se mobiliser et soutenir son financement qui selon lui équivaut aussi à investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection des enfants des générations actuelles.